wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk jullit mbokk talibe yi ñu bàyyi xel ñu ci bind yi amal di ci waxtaane dundug sëriñ Masamba radiallahu kenn ci jàmbaayu lislaam yi waaye nekkoon kenn ci jàmbaayu sëriñ Tuubaa yi ci wàccaayu màggalu daaru karim bi ñaar fukk fan juróom ñaar ci weeru Chaabaan muy 27 Chaabaan ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Mouhamadou Bachir Mbacké Istiqaama moom seriñ Ahmadou moom sëriñ Moustapha Massamba tey nag ñu fas yéene waxtaanee ci sëriñ Massamba tawféex gu rëy gi nga xam ne amoon na ko sëriñ bi waaye fonk gi ko sëriñ bi fonkoon ak xej gi nga xam ne xej woon na ko ci sëriñ bi sëñ Massamba radiyallahu taala anhu suñ boroom da ko defaloon tawfiix moo am cër lool ci sëriñ bi sëriñ Tuuba fonkal ko boppam lool te tim boole woon ko ci ñim jegeñal ci boppam te sëriñ bi dara du ko jege ndax du jàpp kenn walla dara du ko jege lu lu neex yàlla ndax du jàpp kenn lu dul ci yàlla xubbiya fi llahi wa buxdi fiihi li awsala ma kuntu asta fiihi sëñ bi nee na bëgg gi bëgg te yàlla tax ak bëgg gi bëgg ci yàlla bañ gi bañ ci yàlla moo ma defal ma am li ma doon tànn lépp kon mu tànnee sëñ Masamba mii jegel ko ci woppam taw am ju rëy a rëy la sonnee googu nag ak toppatoo gi lu yàgga yàgg la da koy dalee ci laata sëriñ Masamba gane àdduna ngir ne sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ba sëriñ Maamoon ànd sali wàccee liggéey bañ koy yéwénal di ko miiraas waxoon ne nañ fi bàyyi cërib góor muy muy muy cërib Masamba kon toppatoo geeg sonnee gi jiitu na ganeek àddunaam waaye ba mu ganeek àdduna tim sëriñ bee jugee Mbàkke Kajoor ba dëkk bam nga ne àdduna pataar ñu tudd ko jox ko tur kon fi mu njëkkee fi mu wàccee ci àdduna sëriñ bee njëkk ci moom tàmbali ko gatanu ak a sonnee moom la sëriñ Musaa Ka di wax ne Bamba ko tudd Bamba ko tudde Cheikh Masamba Anta ma jàngaloon baayam ba Mamoor Anta waaye tim ba ko tuddee rek soxna isa mi waajur sëñ Masamba jébbal na ko sëñ Masamba radiyallahu taala anhu kon te mu mel ne sëriñ bi fi sëñ Masamba wàccee ci àdduna rek fa lañ ko jébbalee wala sax lu jiitu woon loolu moom la sëñ Moussa Kanaan keroog ndeyam boole na yaari buumam jébbal sëriñ Tuuba mu def boroomam mu dellu jébbalaat ko Cheikh Masamba ngir feddalee ko njébbaluk baayam ba keroog ndeyam wax na fa wax joo xam ne sañeefu koo biral bi duuni may ni ku weddi lii nga dem ko laaj sëriñ daam moo ma wax moo sant woon keroog daam kon foofu sëñ Masamba dafa ñëw rek ñu dugal ko ci loxo sëriñ bi sëñ Tuubaa di sëriñam kon jaarul fenn na mu gënee àdduna fi lañ ko joxee sëriñ bi sëriñ bi tim nangu ko nangu di baayam waaye nangu di magam waaye nangu di sëriñam moo tax sëriñ Musaa Ka ne Cheikh Bamba wax ne ne keroog may baayam fii baatinin ngir yetti yëf ci yaayam kon son gi foofu la tàmbalee nekk noonu tim di ko taxawu ba sëriñ Masamba fi mu xàmmee ba fer ci moom ci moom la ne ndax waxoon naa la ca Euh, Daxasine ci ci Daxasine te loolu Daaru Salaam la te loolu mi fekk fekk na fa sëñ Masamba comme ni ko sëñ Moussa Ka waxee ci marché yëpp sëñ Maam Cerno bi nekk noonu jëm ba mu demee ba àgg si jàng sëñ bee ko daral sonnee am njàngam fu mu mën a dem moo ko fa yebal fu mu mën a jógee moo moo ko fa jógeeloo diggante gi dem ci sëriñ daam sëriñ Maam Cerno sëriñ Mbàkke Buso fu mu maay dem sëriñ bee ko fa yebal te lu muy tàmbali jàng ci alxuraan sëriñ bee ko tàmbalil moo ko tàmbalil alxuraan te moo ko tàmbali moo ko tàmbali xam-xam te moo ko àggaleel waaye njàng googu ci mu defal ko ci tawfeex ju rëy rëy goo xam ne ak sonnee la ngir wax jëm ko waxoon ne téere bu nekk na ci jàng leen la ci des mbokk dana ko baaxi mbokkam waaye tim sonnee googu ba tey day feeñaat ci fu sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu masa nekk an nafaak sëriñ Masamba bu ci bu jàppandee ndax ba muy dux si daal salaam te boo sëriñ Masamba lu ah, ci fer la toll ñoo fa ma sëriñ Masamba nga di nga ñëw Tuuba ca topp sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu maa nga fa woon ba ba ñuy dem ba muy dem Mbàkke Baari ci Jolof nekk noonu tim yóbba yóbbaale woon na ko fa nekk noonu tim ba mu nekk ba mu ñibbisee ba ci daaru man naan fekk fa la fa la fekk sëriñ Masamba bu nekkoon ci ci loxo yi sëriñ Maam na ba muy dem Mauritanie yób yób yóbbaale woon na ko nekk noon jëm ba muy ba muy ñibbisi ci yéen Jolof yóbba indaale woon na ko foofu ndekk noon njaarim jëm fa la nekk nekkoon na fa kon loolu lépp ak ak maanaam sonnee la goo xam ne sëriñ bi ko sonne sonnee waaye itam bokk na ci sonne yooyu sëriñ bi sonnee ko ci sëriñ ma sàmba radiallahu taala anhu muy kàddu yi rëy yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci moom bokk na ci kàddu yu rëy yooyu mu wax ci moom de mu ne ku ma xool de ci li may jëflanteeg sëriñ ma sàmba de danga ma mere loolu nag ngir cër gu rëy gi mu ko joxoon ak xejjil gi mu ko xejjiloon ci boppam nee nañ bis ci njaareem xëy na daan ne kuy laaj laajal ma sàmba kuy jox joxal ma kuy wax waxal ma sàmba loolu nag day teeral cër bu réeréy boo xam ne sëñ ma am na ko moo tax cheikh rafi ma jiw machar yi naan li kulli fardin min al ashyaa'i man min al ashyaa'i man xabatun laakin wa sabquhu l kullu baadin gayru munbahimi li kulli fardin min al ashyaa'i man xabatun wa sabquhu l kulla baa baadin xayru munbahimi nee nag kenn ku nekk ci gaa yu baax yi de am nga am nga daraja waaye jiitu gis fi Masamba jiitu nag moom leer na feeñ na te nëbbulu nëbbul kenn moom la sëriñ Abdou Karim Touré naan lahu min allahi taxsiisun axaata bihi sëñ Masamba dafa am jégleel yàlla suñ borom goo xam ne moom moo ko wër kon am na loo xam ne moom tawfiq suñ borom dong la gum ko defal ci sëriñ bi daalika fadlullahi yutihi man yasha ngeneelu yàlla loo xam ne moo koy jox ku ko soob waaye nag sëñ Masamba dafa nekkoon koo xam ne musta am genn bëgg lu dul sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu musta am bëgg lenn tib lu muy jublu lu dul sëriñ bi waa sëñ Tuubaa ne nañ day naxtal ne sëñ Tuubaa dane woon Masamba de bëggul lenn lu dul man moo tax ma defal ko lu ma defal lu keneen ngir ne loolu sëñ bokk na ci li koy firndeel ne bis sëñ Tuubaa day doon laaj kenn ku nekk li mu bëgg sëñ Masamba comme ni ñu ko waxee woon ci ginaaw daan ko mel na yow sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ne ko loolu jomm na kon waxal leneen mu ne ko amul geneen bëgg lu loolu lu mel ne sëñ Tuubaa sëñ bi defal ko ne fu mu nekkatul bu fa nekkee mu mel ne moo fa nekk kon loolu moo tax niroo gi gin doon wax lépp ak dëppoo geeg yépp day maanaam dugg ci loolu nga xam ne sëñ bi dafa dafa sëriñ bi defaloon na ko ba loolu tax na sax mu mujjee doon kenn ci ni si àjjina yi damay nettali nañ ne sëñ Tuubaa daan wax naan jëfi àjjina yu bëree bëri de mën ngeen koo xool ci sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu kon nag ci noonu la nekke woon di liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fonk ko lool ba defal ko ay maanaam yu réer ay ay waaye jox ko ay mbóot yu kawe kawe kawe yoo xam ne jox ko kenn ku dul moom ndax loolu siiw na ci ne yu bare bëri sëriñ bi daan jëfandikoo da ko jël féetale koog sëriñ Masamba loolu sax sëñ Moulay Bousso dundanteeg moom seede na ko nee na sëñ Massamba dafa jox ay addi yu foor a foor yoo xam ne ku tabe sax mënu ko joxe jox ko jox ko sëñ Touba liggéeyal ko liggéey yu foor looloo tax sëñ Touba jox ko summeeku ci moom ay mboot yu bëree bëree bari ay mbóot yu rëy moo wa kam ahdaa lahu ilqan nafisan yadinnu bihi saxiyu min al anaami lidaka alayhi qad xalaa al hadaya min al asraari min xilaain azaami liggéeyu muy liggéey sëñ Tuubaa moo tax sëñ bi summeeku ci moom defal ko ay may yu bëree bari ak i mbóot yu bëree bëree bari bëri waaye itam bokk na ci xejjel googu sëriñ bi xejjel ko mooy di ko laabiire fu mu toll loolu sax moom ba di xale ba nim fi jógee sëriñ bi moo ko doon orienté fu mu jëm moo ko fa jëmale bokk na ci laabiire yooyu muy tafsir gi nga xam ne defal nag ko xam naa dañ ko fi bi ci benn ci waxtaan yi incha allah nu gën a yaatoo nga xam ne da ko tuddee ak jubal di ay bayit yoo xam ne da bind jëmale ko ci sëriñ Masamba di ko ca laabiire ci mu gën a fonk ak jaamu yàlla gën a fonk taxaw guddi te lu ko waay woo ci lu am ci lu am ci lu lu ko waay woo na xool lu doon bu nekkee aw yiw mu wuyu ji ko bu dul lool mu bañ ko wuyu ji ba na ko ci digalee tuub waaye yëkkati bayit bind ko jëmale ko ci moom rek loolu tawfeex yu rëy rëy la joo xam ne sëñ Tuubaa defal na ko sëñ Masamba waaye itam mbokk na ci feex yu yi mu ko defal woo gim ko daan woo bala moo tàmbalee nettali ngir ne moom sëriñ bee ko defaloon mu am taw tawféexu mën a nettali waxi sëriñ bi te du ca juum xarfan bi xar xarfin la koy nettalee moo tax balaa masaan waxtaan ñu woolu sëriñ Masamba mu ñëw bu paree comme ni ko sëriñ Abibu waxee nee na sëriñ Masamba bu daan sëriñ masaan waxtaan mas mën naa toog ci mujjantal jotaay ba jàkkaloo sëriñ bi waaye bu paree day mel ne mooy nekkaat ci digg jotaay bi ngir ne ñëpp moom la ñuy waraat di ko laaj ju sëriñ bi doon wax kon fi yax la yi nga xam ne am na ko ci sëriñ bi waaye tim ba tey bokk na ci taw fi tawféexam yooyu yónni gi ko sëriñ bi daan yónni lu bëree bëri ndax digal gi nga ko digaloon mu wër te saare yoon wi ngir ci ay jikkoom te saare ci yoon wi ñu baree bëri jaaree ci moom dugg ci yoon wi ngir ay jikkoom yu rafet nekkoon ku tasaare yoonu murit ngir jikko yi nga xam ne amee na ko loolu lépp mu ko doon def ci ndigalu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul comme ni ko sëriñ mu saaka yaxalee waaye tim di ko yónni ci ay njaal boppam ndax comme mel ne rakki boppam ji fi jóge woon mu sëriñ Cheikh Coro ca Ndar sëriñ Masamba la fa yamaloon leeroon lañ ko ci bind yi weesu waaye tim di ko yónni ci ay tudd bokk na ci yi leeral démb comme sëñ Mor Xaadi ba mu amee mu gën a siiw ci sëñ Mor Daaru tuddam woowu sëñ Masamba dafa sëñ bi yabaloon mu tuddi ko te tuddee ko boppam waaye itam bu daan dem ci invitation yi moom itam daan na ànd ak moom ndax ci invitation boobu ki fi nekkaloon kilifa tubaab yi nekkoon Dakar invité woon sëriñ bi bokkoon na ca ñëm àndaloon ca délégation boobu ca délégation bu néew la woon bokkoon na ca ñooñu sëñ sëñ Masamba mi radiyallahu taala anhu te boobu dana ko woon daa ne mu ànd ak ñi nga xam ne moo ñoom ñoo sës ci moom waaye itam bokk na ci tawfiix yi nga xam ne sëriñ Tuubaa defal na ko sëñ Masamba mooy liggéeyloo ko ci xasida yi te xasida day mooy li sëriñ bi gën a fonk ci lim am ndax moom la doon taggee kim gën a fonk waaye sa wax ci wax ju kawe kawe ndax dane ko comme ni ko sëñ Moussa Ka nettalee ca a at la ko sëriñ Mbay Maasloo taalis yooyu yëpp fulku lay dër dërloo mu daa mu naa dañuy jëmm yu ànd ak luk ruu soo leen bindee mas leen ñu ànd ak seeni ruu kon loolu tawfeex ju rëy rëy la loolu nag mu jàmbaare woon ci lool ba sëñ Tuubaa naan sëñ Masamba de liggéeyal na ma loo xam ne kenn liggéeyalu ma ko waaye itam bokk na tawfeex yu rëy yooyu mooy lim gën a fonk muy jumaa Tuubaa ji bokk ci lim gën a fonk bis ba muy woote ci ña waa taxaw sëñ Masamba ngi woon ci jotaay ba comme ni ma ko leeralee woon ci fan yi weesu waaye tim bokk na ci ba tey tim dëkk bi mu gën a fonk muy Touba sëñ Masamba la ko yeesu looloo del ko fa mu nekkal ko fa ndax Cheikh ak sëñ ci ñi sëriñ ak Cheikh ak sëñ Masamba ci sëriñ bi njëkk a dëkkal Touba la waaw mu dëkk fa bu fa gan ñëwee mu mu mu dalal ko daan fa yóbbu mbindu sëriñ bi tim di ko di di ko fa sottee kon demee ne lépp lu sëriñ bi fonk rek dugal na ci loxol sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu kon noonu la xejjee woon ci moom sëriñ bi fonkoon ko lool te defal ko taw tawfeex gu rëy rëy ci boppam kon loolu lenn la rek ci liñ mën a wax ci tawfeex gi mu am ci sëriñ bi tawfeex googu nag taxoon na man ñëpp maase ko fonk maase ko bëgg maase ko jox cër ngir xejj gi mu am ci sëriñ bi ak fonk gi sëriñ bi fonk ko ak jikkoom yu rafet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 wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi di ridwani wa tamkin mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñuy bàyyi xel ñu del siwaat ci bind yi amal di ci waxtaane dundug sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu jëm ci wàccaayu màggalu daaru karim gi ñu amal ñaar fukk fan ak juróom ñaar ci weeru Shaaban ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Mouhamadou Bachirou Mbacké istiqaama moom sëriñ Ahmadou moom sëriñ Moussa Massamba démb nag dañu waxtaanee lenn ci xekami sëriñ Massamba ak wax yi am njëriñam doon wax tey nag dañoo fas yéene ñëw waxtaanee ci mbindum sëriñ Massamba radiyallahu taala anhu maanaam téere yi nga xam ne sëriñ Massamba moo ko taalif ak way yi nga xam ne sëñ Masamba moo ko way bokk na ci yooyu waaye sax laata loolu ñu xam ne sëñ Masamba dañuy wax fànn way ak bind moo xam muy wesar da ko jekk woon lool te amoon ci may te am ci tawféex ju yaatu am na vidéo bu tasaaroo sëriñ Pape Malick si di wax ne sëriñ Babacar si moo ko nettali wala sëriñ Cheikh moo ko nettali daal ne dafa wax ne sëriñ Massamba ak sëriñ Mouhamadul Bachir moom sëriñ Touba ku leen gën a jekku arab gisu ko waaye loolu sax moom li ci gën a doy firnde mooy liggéey loo gi ko sëriñ Touba Xaadimu Rasuul doon liggéey loo ci xasida yi te xasida yi moom ci làmmiñu arab la ko def ndax Sëriñ Tuubaa lépp ci làmmiñu arab la ko doon def nudi ali nuuru lisaani wal kitaab Sëriñ Tuubaa yàlla da koo jox leerug làmmiñu arab mu wax ne lisaani yaxtama ani lugaati laa siyama alsinatal sama làmmiñ teetu na aaru na ci mboolem làng yépp des làng arab te suñ Masamba dafa nekkoon ku jekku littérature arab mënoon bind muy way muy wesar waaye itam man gi mënoon loolu taxoon naa mun a jàngaleel boppam xam-xam ndax mel ne docteur Mohamed Ahmed Lo bind na ci téeram bi ne sëriñ Abdul Karim Touré daan wax ne sëriñ Masamba ko jàngal risaala moo taxoon moom sax mu daan dem ci moom di ko ngir jàng ko ci moom kon sëriñ Masamba ci moomu daan naa jàngale boppam xam-xam waaye itam yëwule woon ci jàngale ko rek waaye itam bind na ay bind yu am solo li mu bind nag lépp minal xadiimi ilal xadiimi ci sëriñ bi la tàmbalee ci sëriñ bi la yom ngir ne léppam génn woon sëriñ bi ndax ay ñaanam lépp boo ko danaan lu ma lépp lu ñaan boroomam ma noppitim da ci ñaan ne yàlla na nekk nag néegu sëriñ bi bokk na ci li mu mooy xas daam gu siiw googu nga xam ne moom la tuddee mawaahibul xadim fil madaxi wa duaayi bi takrim mawaahibul xadim di xasida goo xam ne sëñ Masamba da koo bind di ci tagg sëriñ Tuuba ak di ko ci ñaanal waaye mu nos ko woy ko comme ni sëriñ bi woye ik ni ñoo bokk ak daaneel waaye tim ñoo tolloo ci lim ci ay béy xanaa boo leen seetloo day tolloog amiin ñoom ñaar ñëpp koo ci natt day tolloog amiin loolu nag ab lim la ndax amiin day firi yàlla yàlla na nga nangu ñaan kon loolu ab jubluwaay la goo xam ne am na mbóot mu nekk ci biir waaye nag di xas la gu lool ndax doy na ko sëkk ci kawe day dimbali taalibe bi mu mën a waqanteeg sëriñ Tuuba waaye li mu yéenee ñaanal sëriñ bi te mënu koo wax te xamul yan baat lay jëfandikoo ngir mu yell ci sëriñ bi bu jàngee xasida googu day fekk ñaanal na sëriñ bi ñaan gu yell ci moom ndax xasida googu sëriñ Masamba da ci njukkal sëriñ bi ñaanal ko ci tagg ko ji ndax ni nga ko ni ko nosee da ko nos ci ñett ñi nga xam ne sëriñ bi da koo doon muy nekk gi mu nekk abdullahi mu ànd xaadimu rasul gi waaye tim nekk gi mu nekk di liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy abdullahi wa xaadimu rasul gi waaye nekk gi nekk xaritu yàlla muy xalilullahi wa habibuhu loolu day feeñ ci bay du njëkk yi nga xam ne way na ko muy alhamdulillahi lamma kaana yallaahu abdul xadimi xalilallahi yallaahu mu ne maa ngi sant yàlla ba Sëriñ Tuubaa nekkee jaamu yàlla di soppeeb yàlla moom boo boo seetloo wax yi bi du ci moom li mu am lay sant waaye ci li Sëriñ Tuubaa am lay sant kon loolu mooy maxfuusaat moom moom ifance dina jëmmam gisul boppam sëriñ sëriñ bi rek la gis maa ngi sant yàlla ci sëriñ bi li mu am radiyallahu taala mu jóge ci loolu nag di ko ñaanal hablil xadimi alladi qad xaada xayra huda maxtaara min kameel xayraati allahu na may sëriñ bi sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo laq ngeen di jub la mu bëgg lépp ci yiw may ko ko loolu benn bay du ne da cay ñaanal sëriñ bi waaye tagg ko noonu la def def ci ay tagg yu rëy rëy rëy ci sëriñ bi ñaane ko ci maxaama yu kawe ndax bokk na ci tagg yam ko ca tagg mu ne hablil xadimi alladi yuxli almaqaama bila imaratin barrat al mu ne na may sëriñ tuubaa xaadimu rasul mi nga xam ne day joxe maxaama may ko li gaa yu baax yëpp baaxu gaa yu baax yëpp jox ko sëriñ bi waaye tim bokk na ca yem ko wax mu ne ko nanga may sëriñ bi nga xam ne day may ak taalibeem ak fatxu ci lu gaaw a gaaw hablil xadimi alladi yunmil futuha ala tilmidi may ko fatxu gi gën a rëy ayee fatxin faqiya allah waaye ba mu ko ñaanee loolu ba noppi dafa ñëw nag ci nekk gi mu nekk xaritu yàlla foofu dinu tagg ko ca tagg yu rëy rëy rëy bokk na ca tagg yooyu mu ko tagg mu ne kun lil xalil alladi ma zaala aabida man lahu alxalaiq wal asmaanu yallaahu kun lil xalil alladi ma zaala raafiqa man lahu alawaidu inda allah yallaahu may la Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne musu dañ ci jaamu yàlla may la Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne musu dañ di ànd ak suñu borom subhaanahu wa taala musu dañ di ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tim ba wax ko de sax wax yu rëy rëy rëy daan ne mayal Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne ku ko soob mu àggalee ci yàlla ci lu gaaw a gaaw ci ak saa sëriñ Tuubaa mi nga xam ne simila saa mu àggali ci yàlla kun lil xalil alladi ma daala yusilu man qad shaahu tarfatan lillahi allahu waaye mais sëriñ mi nga xam ne ku mu mu dugal la ci àjjana suñ borom jë kun lil xalil alladi ma daala yudxilu man yàlla bi nga xam ne ku mu ko soob mu dugal ko ci àddina yàlla ga kum ko soob mu génne ko ci sawara suñu borom sa kun lil xalili alladi ma zaala yubcidu man yashauhu an adabi nnaari yallahu ñaan yu kawe kawe baa gi ci ne nekkale Sëriñ Tuubaa ni nga xam ne lu ko soob mu am kun lil xalili alladi in shaa yafalu ma qad shaahu ay amrin kaana yallah nekkale Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne lu ko soob ci boromam day am waaw wax wax yu rëy ba wax nag daan ne sëñ Tuubaa mii daal bu ko nit ñi xamoon dëgg-dëgg xam dañuy gën a kawe rek dañuy gën a mucc dañuy gën a am ak texe walaw daral xalqu ilmal xaybi minka la kaana kulluhum fi l ula wal fawzi allahu bu la nit ñi xamoon dëgg-dëgg xam ñoom ñëppay maasee kawe ñoom ñëppay maasee kawe ñëppay maasee texe yal na yàlla may tawfiix ñu ñu xam ko dëgg-dëgg xam ginnaaw bu àgg tagg ko ci moo xam ci wetu waajur muy anil bakki alladi lawlaahu ma alimat ba noppi tàgg ko ci wetu waajur wu jigéen waajur wu góor wa anil bakki ginnaaw waaju ginnaaw ba mu tàgg ko ci waajur wu jigéen an ibni jaar alladi faaqa rijaala ala sabti l atiqi min al birzawniya allahu tàgg ko ci tarbiya gi muy tarbiya nit ñi ak tarbiya gi mu ko defar moom an ibni jaar alladi raqa alkiraama ala ixsaani tarqiyatin fi lwasiya allahu ki may wax de maa ngi ci jublu doomi soxna jaara jooju nga xam ne moo yéegal gaa yu baax yi ci tarqiya gu rafet rafet waaye tim ñaan fa nag ñaan yu rëy rëy ngir suñ borom dolli ko tawfiix moom ci barkeb sëriñ bi bokk na ci yooyu rek benn béy bi rek dana ci doy waftax lana kulla baabil xayri ya sanadi warfa bina alhimmata al aliya ay allahu mu ne yàlla yan nañu ci jël bunt bépp yiw te yëkkati suñu yëtte xasida gi nag di xasida gu kawe te am doole ngir ne sëñ Masamba dafee ñaanal ku ko jàng ñaan yu rëy rëy rëy rëy mooy maa fi bu xadim gi ndax nee na yàlla képp ku koy jàng xajal aajo ku képp ku bëgg sa aajo faju rek da nga ko dee ko jàng ndax ñaanu sëñ ndax ñaanu sëñ Masamba gi wa jaal jazaa kulli man qara'aha qadaa xaajatin bi jasli ajriha mu ne ku ko bind tim na ko defal mbég ci ak ngërëm képp ku ko xool sax na ko képp koo xoolee ba ti yéen ma ne nang na nga ko defal na nga ko ngërëm kon xasida gi rek doyoon na waxtaan buñ ci doon waxtaan du jeex waaye xam naa du ñàkk dañ ko bi si boo boo xam ne incha allah moom rek lañuy ñuy waxtaanee mawaahibul xadim incha allah tabaraka wa taala waaye bokk na ci yim bind tim muy xasida googu nga xam ne da koo bindoon doon ci tagg Serigne Touba radiallahu taala anhu te mu tënkee woon ko turi Serigne bi Muhammadu Bamba Ahmadu Bamba Muhammadu Bamba xadimu rasulillahi noonu la tënkee woon xasida googu xasida ga ma nga tàmbalee ci madattu yaa karimu bil abdi yadi wa xuttali ma lam yazal bil afiri te tàllal naa sama loxo jëmee ko ci yow suñ borom mu tedd bi waaye nag nga jox ma loo xam ne du jeex mukk waaw du dañ mukk di am njariñ xasida googu ci la waxtaane may yàlla yu bari yi nga xam ne may nag ko bokk na cee yam ko wax daan ne ko dane xustul mawaahiba bila akdaari bi xay bi xayri ikraamin ma inaami mu ne am naa may yàlla yi may am naa ko may am naa ko am goo xam ne antu daray nax waaw yàlla moo ko teele ngeen di teeral te mu ànd ki xéewal mu ne yow sama borom ma datta lii xayral madaaya yaa karim bila mashaqatin bi tabjilin yaduum yàlla defal nga ma ngeen ji jaloore ya ngeen ji daraje yu kawee defal nga ma ko te àndut ak benn coono nag ci ak màggal goo xam ne day sax ba faw waaw mu ne am naa ak may ak aku fatxu goo xam ne ci waameeg suñ boroom gi ak ci bëbbam gu gu guy sotti gu gu mag gi ci la bàyyi ko xawaytu fatxan bi fuyuudi minka wali yazid xayral fuyuudi anka mu ne suñ boroom defal na ko yooyu yëpp di fa waxtaane ay mayam yu bëree bëree bëri xasida gu gudd a gudd la waaye tim ñaan fa suñu borom lam bëgg a am lépp waaye yooyu yëpp nag mu ñaan ko ci daraje sëriñ bi ngeen na xasida gi moom sëriñ bi la ko tënkee comme ni mu ko waxee woon Muhammadu Bamba Ahmadu Bamba Muhammadu Bamba Xadimu Rasulillahi waaye tim bokk na ci yeneen xasida lu ci mel ne xasida gi mu taggee sëriñ Tuubaa te muy xasida gu gu goo xam ne wax ja daa kawe lool xana day tegtale jëkku sëriñ Masamba waxiinu arab xasida googu mi ngi tàmbalee ci cheikhi muhammadu bambal kaamilul faashi man saara bayna alwara ka shamsi fi lxaashi eh, sama sëriñ de mooy sëriñ Tuubaa lool ki nga xam ne de boo ko gisee ci diggante ci ci biir mbindeef yi day mel nepp jant rek bu nekk ci bu nekk ci kaw asamaan si الظاهر الباطن الصافي الظلال على أهل الفضائل من عالي ومن ماشي mooy ki xam ne moo ci biir ak ci biti mooy ker gi nga xam ne mooy ker gu sell gi gi nga xam ne moo keral mboolem gaa yu baax yi moo xam ñi kawe ñi ñi aw ci kaw moo xaw ñi aw ci suuf ba na xas bega jeexee waaye bokk na itim ba tey ay xutba yoo xam ne bind na ko yoo xam ne ay xikma yu rëy rëy la la àndaale bokk na ci biñ ci doon waxtaane démb ak yeneen i xutba yu am solo yoo xam ne da ciy ak ci tege ci yoonu suñu borom waaye itim am na ab téere bu mu bind boo xam ne da cee dayale xikmay Sëriñ Tuubaa yi wax yi xam ne sëriñ bi daan na ko wax te moo te mu gënuñ koo mokkal ku dul moom moom itim daan na ko bind na ci ab téere dajale ko xam naa téere bi dana dana génn incha allah mi ngi mi ngi téere baa ngi fi lu lu ñu am la kon yooyu yëpp doon na ko liggéey ci xam-xam waaye itam doon ko liggéey jëmee jëmee ci sëriñ bi radiyallahu taala anhu yan nañ ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te ñu gën a xintiwoo mbind bi te topp ko ndax leer bu rëy rëy rëy ci ak mënis bu rëy rëy ndax ñaan yooyu mu ñaanal ku koy jàng yal nañ ci yàlla defal tawfeex taxawu ni fii waaye tamit di sàkkuwaat ci mbooleem ku dégg suñ kàddu rek lépp lu am ci sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu ci mbind walla lu ñu wax ci moom mu baaxee ñu ko ñu yokk ko ci liggéey bi taxawu ni fii ba suba ak jàmm ñu dikkaat yéen ci leneen ci dundu ma sàmba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu